ne nga xam ni président Abdoulaye Wade mooy njiit li mu teg ci partem di bokk gis-gis ne teg ci AJPADS du Mamadou Diop Decroix ne teg ci teg ci CRD ne teg ci jot na ne fa tabaar kalaaw kilifa yëpp a ngi nii nee Abdoul mbay mu ngi fi. nee Mamadou Lamine Diallo mi ngi fi. nee Bruno Derneville mi ngi fi. ak ay responsable PDS. nee ak ay responsable PDS. ak responsable sama parti. nee ak responsable sama parti. nee ci ñooñu moom ma cee tudd Cheikh Abdou Bara Dolly. Cheikh Mbacke Baara Dolli. nee ak Cheikh Mbacke Baara Dolli. moom moo fi toogal PDS. nee ndax moom moo fi toogal PDS. kii moo fi toogal bokk. nee kii toog di Cheikh Abdou moom it moo fi toogal bokk gis-gis. waaye tey loolu yëpp. waaye loolu yëpp. dafa seey. nee dafa seey. ndaxte coalition bi rek. moo jiitu nee ndax tey coalition bi rek moo jiitu. Cheikh maa ngi lay nuyu nee Cheikh Bass maa ngi lay nuyu ci turu coalition bi. nee di la ndokkeel ci bis bu màgg bii ñu jublu nee ndax bis la boo xam ne nee ñun ñii di murit nee li ñu sëriñ Touba liggéeyal nee xamuñu ko lépp nee damay faral di wax ne nee ñun murit nee duñ ko tuddoo nee dañ ko wone nee dañ ko war a wane nee murit du lu ñu tuddoo de dañ ko war a wane. ci les jours. nee ci suñu comportement de tous les jours. da nga war a fexe ba ku gis. nee képp koo xam da ngay woote ni murit nga da ngaa a fexe ba ku la gis. yëngu. nee ak ci looy yëngatu. wane ci njub. nee nga wane ci njub.